góor gi étudiant ndeysaan moo leen féete càmmoñ Boy Balde moo leen féete ndijoor arbitre bi naan leen sifflet moo leen boole waaye sifflet moo leen tàqale ndeysaan wax naa góor gi wax naa Boy Balde arbitre bi sifflet na mbokk yi sifflet waat na ndeysaan noppalu nañ ba ñëw ci deuxième période baa ngi noonu góor gi étudiant Boy Balde mbokk Boy Baldé ngi dox ci kawam ndànk ferme gardam di dox ci kaw góor gi gi ma ngay arrière góor gi booy Baldé mbaa bi yoon du gaaw wala day yéex góor gi Boy Baldé door na oh góor gi door na ña ngay xeex góor gi jël nañ tànk ba góor gi Boy Baldé góor gi Boy Baldé góor gi daan na góor gi daan na Boy Baldé góor gi daan na Boy Baldé góor gi Étudiant daan na Boy Baldé jël bu rëy góor gi Boy Baldé ndeysaan oh. sa booy bi daan na. waaw sant yàlla rek lii lañ si bëggoon sant yàlla booy bu yaru la booy bu baax ku yaru Étudiant booy bu yarula ku baax moo tax tey nu soxna si bésam. waaw mais changement moo ko sonal waaw moom loolu lañ ko conseillé. Balde dañ ne ko changé le pied. ndax gauche la tegoon. ndax étudiant droit la teg ñu ne ko changé le pied. tolloo moom. mais pied boobu bu fekkee ne noonu booy bi étudiant. jàngal nañ ne ko gauche ak droite lépp lu ñëwee rek da nga koy mën a gérer. comprendre nga. moo tax bu mu changé pied si la dansé bi am. si la ko booy bi contre mu contre booy bi. Uh-huh. booy bi daw jël ko. Uh-huh. waaw moom. waaw noonu la fa demee. dama gis sànq ba léegi bu xaccee nga ne ko toogal say tànk day ñëw loo xamal bool bay da ba jàpp ni day ñëw. yàlla xam na ne xaw ma sax booy bi. mais xam nga nit. Mm-hmm. maanaam man damay liir mit nit man bu ma la gisee takk rek dinaa xam li nga capable. Mm-hmm. boo gisee njaf la xam. an ni muy def réaction am da ngay xam ne kii at bi bu naan prix muy daw di ñëw. comprendre nga moo tax ma ne ko sàmmal say tànk tànk mooy nit bu ñaar nga am bu jëlee benn bi benn lay dese da neex daan man bi ma dalee bëri ba léegi kenn mosul laa samay tànk boo laa ñëw ma ñëw loolu laa koy jàngal nag waaw waaw pisan